asalaamaaleykum gars yi màggal gi yegg si na waajal leen te waajal kenn du Serigne Touba Xaadim Rasul gars yi kafe wu ma lii may wax barke Serigne Mbamba mbiri Serigne Touba loo ci def rek mu yokku déwén barke Cheikhul Khadim gars yi safar gi dikk na waajal leen te xam ne Serigne Touba kenn du moom Serigne Touba kenn du moom kenn du moom waajal leen safar gi ñëw na màggal gi ñëw na nii la ñuy njaabee dugg biir Touba màggal màggal gi safar safar. barke Seexul Xadiim Sëriñ Tuubaa nee na sama tay junni dana gàcceel sama démb te sama yoon wii amul dellu ginnaaw kanam rek la am leen màggal gi yàlla ñëpp am wér ñëpp am jàmm ñëpp am salaam koppar yi bari bernde yi bari ñu sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kenn Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul direction kër Sëriñ Abdou Karim Mbacké bu bi Ibrahima si yow looy génne ci délégation bi yow. Serigne Touba waa ngi noonu ngi noonu di dugg si kër Sëñ Abdou.